asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gars yi bàyyee nañ ci jàmm ah bëgg naa ñu jàll ci benn euh, poulet farci de waaw bu ñu accompagner ak euh, couscous cantonais ingrédients yaa ngi tege tuuti viande hachée euh, foie bi jóge ci poulet bi couscous ak yeneen bagages yi nga xam ne daal dinañ ko naa koy citer au fur et mesure mu ciy dem donc farce bi la ñuy njëkk defar. ñu sauté tuuti viande hachée euh, dese woon naa tuuti farce la dernière fois bi may defar euh, cuisse de poulet farce yi donc euh, râpé naa lu toll ci cinq jàpp ak six gousses d'ail ak gingembre moom laay tibb noonu def ko ci viande hachée bi def soble yëngal nag ba yëpp ñor nga jël sa épice sa ay épices sànni ci tey thym laa jël poivre ak tuuti curry Euh, waaw defe naa ñoom ñoom laa jël tey def ko ci euh, recet bi ak tuuti sauce soja donc su ko defee nga jël sa farce daal di koy togg ba mu compoté viande hachée bi ñor soble bi ñor mi ngoog foie bi nga xamante ni moo jógee ci poulet bi yépp ñu def ko ci daal di koy euh, togg ba mu très bien mi ngoog léegi nag bu ñu ñu xaaree ba soble bi yëpp ñor nga jël farce bi desoon def ci ak mousse de foie gras. mousse de foie gras bi bokkul ba tey ak foie gras moom dina ci andi goût bu neex donc léegi nag nga fay gaz bi mélanger yëpp ba nga xamante ne euh, dajaloo na mi ngoog léegi dañuy def lu dul jaxase ko tas mousse de foie gras bi mu jaxasoo ak farce bi ba nga xam ne da ngay am quelque de de pâteux ok nga xamante ni boo ko dóoree ci ginaar gi danaan dégg ok léegi nag pare na ñu réserver ko de côté dem ci ginaar bi ok moom dafa taaruwul nag moom tey mais ginaar bi ñu ko nettoyé bu mu set léegi dañuy xorom mu nga xorom avant ñuy farcir sinon day lewet donc xorom ci biir xorom ci biti xorom euh, kaw gi xorom ci suuf euh, soo ko nag jël farce bi remplir ko ba mu fees tel nga jël sa ay pic tenir ko wala nga ñaw ko mu ngoo ko benn baton brochette bi ngay damb ci digg bi rek daal di koy tenir nga xamante ni farce bi suy ñor du tuuru après nag nga daal di jëlaat tuuti moutarde donc tey jëluma sàppaliwuma torop poulet bi ex ci extérieur bi parce que dama bëgg euh, ñu sentir guubu poulet bi ak guubu farce bi parce que des fois di ngay jël ginaar mariner ko ba affaire bi dootul safati ginaar mi ngoog léegi moutarde laay jël diw ko ci euh, jël thym wis ci kaw ak poobar ak tuuti sauce soja rek ak tuuti huile d'olive avant muy dem ci four bi. nañ ko sauce soja noonu xamante ni bu génnee nga am quelque chose de doré ba pare tam extérieur poulet bi dafa war a saf waaw yu ay yu lewet moom waxuñu ci dara nga wisal sa tein wis sa poobar ba mu saf. ngoog bu la neexee sax mën nga ci diw nokkos ça c'est personnel su ko xamante ne bëgg na yu yu saf daal nga jël sa huile d'olive wis ci kaw enfourner nag pendant une heure jàpp une heure vingt à température euh, moyen cent cent quatre vingt cent soixante sax mën nañ démarrer cent soixante degré après ñu soog a yokk def ko cent léegi ñu ñëw ci couscous bi euh, li desoon ci laaj bi ak gingembre bi moom laa rosi tuuti huile d'olive dagat carotte poivron couleur bu jaune bu vert ak bu rouge euh, petit pois ba ngi noonu tege ak courgette ñu jëlaat même épices yi defaat ci biir d'habitude même épices yi laay rappelé rek thym poobar ak tuuti curry mi ngoog nga xorom daal di bàyyi légume bi ñor petit pois bi ñëw ak courgette bi parce que ñoom ñoo gën a nooy soo bëggee nag mu gaaw a ñor da koy tëj man légume su ma bëggee euh, ñor bi accéléré da ngay wut sa couvert rek tëj ko benn cinq minutes soo ko ubbee fekk légume yëpp ñor waaw loolu tam daf ciy am solo donc couscous cantonais bii nga xamante ni Euh, ba may defar tabule bi ci laa ko ci la ma inspiré moo tax ma defar ko ñu yëraale ginaar gi noonu waaw kañ de temps en temps di ubbi di ko yëraale noonu di ko arrosé waale daf ciy baax mi ngoog léegi légumes yi ñor na ñu jël couscous bi def ci biir sauce parce que dafa war a am tuuti sauce ok nga jël sa def ci biir préparer defar sa benn omelette jël ñaari neen rek xaw ko def brouillé noonu. mu ñëw dem ci biir nga daggat sa ay herbe aromatique jël naa aneth parce que am na ci marché bi menthe euh, coriandre ak oignon vert ñoom ñeent laa daggat pour ñëw def ko ci couscous travail bi moo ko wisal sa tuuti sauce soja dolliwaat tuuti huile d'olive mi nga ko travail ko comme booy defal sa riz cantonné rek mi nga léegi ñu mélanger mën mën nañ ko tëj le temps que ñu defar omelette bi donc ñaari nen nga mélanger ba mu ñor ngoog ñëw dóor ko ci biir jël herbe aromatique yi ma cité léegi oignon vert menthe fraîche aneth ak coriandre moom it nga ñëw dóor ci biir moment bi nag mën nga fay gaz bi boo jëlee nen bi def ci jël herbe aromatique yi def ci soxlawul ñu koy togg nga fay sa gaz vérifier ni ndax poulet bi ñor na parce que dañ ko dëppoon léegi mën ngañ ko tourner nga xamante ni blanc de poulet bi du wow ngoog fekk nag suñu couscous travail couscous bi nii rek mën nga ko jël yàq ci plat lekk parce que saf na ba pare defu moo tax defaruma sauce defaruma dara léegi dañuy to retourner poulet bi suñ ko retourner waat ko fa benn benn quarante cinq minutes ñu préparer nag suñu dressage daal di ñëw yàq poulet farci bi mi ngi ko defar naa ay frites ndax naa Leonardo séwul noonu ci couscous bi waaye naa ko ko force fekk na poulet bi ñor bien doré ak couscous cantonais bi nga xamante ni moom lañ koy accompagner donc mi ngoog sama gars yi euh, sauce bi nga xamante ni moo nekkoon ci poulet bi moom laa def ci plat noonu réduire ko tegee ko de côté mën nga si yokk say moutarde yokk ci vinaigre mu nekk sauce daal mi ngook je je vous souhaite une très bonne dégustation j'espère que di ngeen mën a reprendre recette bi mu bokk ci recette de fête en attendant yeneen volaille yi di ñëw on se donne rendez-vous très bientôt ci Alphie Cuisine n'oubliez pas di partager vidéo yi et puis di abonné rek sama gars yi comme ni ñu koy defee saa su nekk jaajëfal naa leen joyeux Noël